ci presque si île yooyu la ñuy dem di dëkk. léegi yow su foofu nu mu demee foofu lan moo tax ñu ne non parce que foofu j'ai fréquenté les les indépendantistes. je suis allé dans une île où personne n'allait qui était l'île des plus grandes indépendances je suis revenu on m'a ciblé. on a dit que je suis. ñu jàppale <laughs> ko kon dañ ma yónni sax. ñu jàppale non yow jël nañ ma dañ ma sonn non jàppuñ ma mais ils ont enquêté tout l'argent que je venais. un moment on m'a bloqué tous les hôpitaux mënatu woon liggéey benn hôpital. médecin même en tant qu'infirmier on m'a ay euh, ay enseignants euh, protestants ñoo mujj jël yóbbu ma dans une autre île pour ma fay jàngale. mais avant may euh, jàngale di am salaire ils ont regardé la tout l' argent que je recevais fan lay jógee et leur surprise c' était quoi c' était le fisc français qui me payait <laughs> le fisc français vous connaissez. état l' état France le ministère de la santé de l' France ñoo doon def ay ñoo ma doon def ay virement kooku ay acte ay acte yu ma doon def aux urgences mhm. xam aux urgences dañ lay réquisitionné mhm. si quand y a des morts wala mais benn papier lañ lay jox nga ko mhm. bon les lenteurs d' état c' est connu lu ñu ma waroon a en 80 xaw ma 82 en lañ ma ko commencé fay C'est ça qui m'a permis de tenir le pont. e en même temps, leur montrer que, que mes revenus n'étaient pas, <laughs> pas de chez Kadhafi. Loolu moo la sauvé foofu. Pas sauvé, mais disons. <laughs> non c'est pas sauvé boo nekkee ci dëgg xamul du question sauvé c'est que yéen yéen a xamul li may def xamu leen ma ngeen bëgg a xam ngeen soupçonné ma de quelque et la vérité apparaît que portable maa mu jëndal sama bopp Ah, may soupçonné que portable bi mënuma ko jënd parce que xaw ma c' est le plus cher. mais comme comme comme ñu ne comme ñoom ñi ñi fare ak ak Macky ni ñu ne boo xëy ñu ne docteur Babacar ñoo ne c' est un politicien encagoulé day làqatu mais day il fait de la politique. quand quand Macky était sur la bonne voie <laughs> j' étais encagoulé de son côté <laughs> c' est ça que je leur réponds. donc actuellement Macky n' est pas sur la bonne voie. il ne l'a pas montré o aux libertés hein, individuelles et tout l'atteinte aux professions. quand des médecins font des certificats médicaux contre un viol et qu'on euh, que ça l'enquête ne s'arrête pas là-bas <laughs> hein euh, que la justice que du ñu dem ne la viol la woon ñu ne léegi duutu viol hein duutu viol xaw ma nag corruption de jeunesse. kan moo doxante corrompre corrompre gel bi muy ko doxante. man <laughs> docteur foofu rek moo may rey. yow doxante bi nga bëgg jël. yóbbu ko ci corruption de la jeunesse. est-ce que c'est pas trop facile kan moo yóbbuwaalewul saabu banaana ci kër fi muy doxante. mais ñoom ñoom li ñu wax noonu non non non corruption de la jeunesse dañ ci dugal maanaam. xiirtal ko ci lu bon quoi. doxaan doo xiirtal ci lu bon aussi. loolu la moo doxaan loolu la moo doxaan benn <laughs> loolu mooy séduire en français <laughs> mooy ku doon liggéey nga séduire ko. da may peut-être benn baat may ko benn woon corruption yàgg na corruption de jeunesse yàgg na de corruption de jeunesse et puis ñun am na loi yoo xam ne sax mënul exister Sénégal quand un ministre a dit que sa mère l'a eu à quinze ans mm. kooku boo ko yóbboon en Europe lu ñu lu ñu koy def c'est un ministre qui est qui a dit que son il est bi muy juddu yaayam quinze ans la amoon ah, hmm? Kédougou Kédougou lan on marie les les filles à quinze ans ou à dix ans donc am na loi yoo xam ne déjà euh, te loi boobu dégg naa sax France la nekkoon mosuñ ko fa utiliser mosuñ ko utiliser Sénégal mais corruption de jeunesse ku jigéen nga dem di ko corrompre pour euh, pour nga baal ma moom yi nekk ak <laughs> kooku moo ko deful. <laughs> docteur arrestation Ousmane Sonko ñu ñu ngi koy wax am nga ci yaakaar ñu jàpp ko fan yi lu yàggul dara. Ah, bu fekkee euh, état d'urgence la ñu bëgg. dafa hmm. dañ ko jàpp. ah nga jàpp na bu ko jàppee mbir dina yegg foofu. Ah, Soit tant tentation, c'est la loi du tout ou rien. Ça s'appelle la loi du tout ou rien. Soit ça passe, soit ça, casse. Et ça ne cassera pas vu comment il s'est préparé. Les anciens recrues de l'armée sont revenus. Hmm? On, vous dit le nombre de milliards d'armes qui sont rentrées à la présidence, même pas, pas dans les casernes. Mm-hmm. <laughs> hein? On vous a dit ça. Vous l'avez vu, mm-hmm. a des armes de, des et forêts. benn agent ooy forêt paax lañ ko jëm dégg naa y' a pas longtemps c' est passé au tribunal il n' avait même pas de quoi se défendre <laughs> donc ces armes là. c'est paradoxal paradoxal loolu. c' est dans le journal de de de juin. un des gardes forestiers paaka lañ ko fekk fi mu doon jàppee ay ay braconniers ñu jëm ko ay paaka. kooku il n' avait même pas de quoi se défendre. donc ces milliards d' armes là sont passés où ils sont où actuellement. Hmm? les légionnaires qui sont revenus au Sénégal qui ont été recrutés. ils sont où hein et li ma gis ci ay bal ñu tiir ko ay sénégalais c'est c'est pas des militaires sénégalais mais loolu daf la li nga gis. lii daf la li moo tax ma ne leen euh, on doit euh, se lever pacifiquement avec le bracelet là montrer. qu'on est nombreux bracelet moom bu ñu jógee si pacifiquement day mel ni kon euh, Ousmane Sonko la ñuy jàppale ñun ñëpp. Ah, pourquoi parce que man tey fi ma toog nii ñemewu maa takk bracelet. lu ma ko takkee day day wane ne carrément Ousmane Sonko laay jàppale. te sama toogaay waruma jàppale. koo ñu bëri dañ naan sa toogaay. koo nar a voté xam naa ko <laughs> ki may voté mais yow. <laughs> mais mais dëgg euh, dans un pays parce que de façon euh, loolu moom leer na. Hmm. parce que nee naa le crime de de Sonko c'est sa popularité. kooku nag def naa bi justice bind ko. mais am na ñu jàpp ne discours am moo posé problème. mais mais. man boo noonu wàcc escalier nga doo nga gala nga daaneel ma deux fois trois fois bu may duggaat fii du ma du ma ndi seen immeuble bi trois étages bu may dugg ay booy di ma di ma saaga wala di ma dóor walla xëcc sama oto wala kii demee booy ñëwaat na may def. Mm-hmm. <laughs> da ngay ñëwee beneen façon. <laughs> kon da nga jàpp ne ah, euh, riposte. loo xam ne boo demee tribunal euh, ñu yóbbu la cent fois tribunal ñaata yoon la ñu yóbbu tribunal parce que Sénégal bu ñu yóbbu autant de fois le tribunal de quelqu'un ngay dem tribunal doo mën a demal sa bopp fii nga war a jaar waroo jaar mais l'ordre public di dem tribunal tamit fàttali tali bi à gauche à droite justement euh, c'est la popularité c'est la popularité kooku moyen yi ñu utiliser pour